salaamualeykum wa rahmatulahi suma gaañ yi di leen seet di leen ziar di leen wax ne man la waa seen xarit mari Bachir ah cooking with Marie Bachir maa ñëwaat fii tey pour share ak yéen suma idea ak yéen ah, tey nag maa ngi am fii nii li ma defal tey mooy like a meatball waaye meatball bi am um, is gonna be a different one bii dañ koo coat ba ba pare tamit dañ koo coat with potato ak with breadcrumbs am lima fi am sama ingredients la len buga bëgg wan di len wax ne meatball am meat beñi ni like mince meat mom la am it depends mon nga am lamb wala beef dafa des yo ban façon ngi mince meat nga buga bi ma am suma cajun seasoning ma am suma fi egg bi ma am Himalayan salt bi mo nekk ni ma am fi ni am am tomato sauce bi moy buñ dee def so bu bëggee defal comme spaghetti bolognese bo dee use bobu la fi ma am fi suma cheese cheddar cheese fii ma am suma uh, am lifin bi mu ngoog ma am mix herb mix herb fii parsley dry parsley bi la maa ngi am fii tamit like spring onion why um green side bi rek moom chopney chop green side bi rek la fii ma am suma coarse am black pepper fii ma am suma like uh, lifin naka parsley fresh parsley garlic bitam cheese la cheese bi tam dama ko cheddar cheese bi dama ko slice ni mako slice fi ma am suma all purpose seasoning smoked paprika ma am suma um, flour olive oil breadcrumbs, crumbs semua suma ingredients yi mooy ko suma ingredients yaa ni nii ahankeñ ba pere tamit dafa war a àndaale tamit like potato waaye potato bi dama koo baxal ba pare ma mash ko soo moom ngi nii maa ngi koo baxal soo maa ngi teg tamit suma frying pan pour suma am um, mince meat bi waaw soo lii laa amagum soo ma posagum fii after naa leen wan frying pan bi dama fa def tuuti olive oil tuuti rek pour stick parce que am um, olive oil bi laa use xam nga am um, ndawal moom especially mince meat moom dafa bari faat ba pare so so mën nga mën nga mën nga ko faa def bismillah da nga gis ne defaguma fi ben seasoning waye dina ko def dama dugal ba pare after den ma soga def suma seasoning yi ma ko wara def Will Smith bi moom xam nga moom moom moom dafa bari faat ba pere moom anyway dina li final boppam moo tax tuuti diw rek am na ñoom na sa duñ dee def diw wax dëgg dañ dee teg noonu rek mu génna diw bi génna waaye man maa bëgg a def tuuti rek pour bu mu stick si pan bi léegi ma ñëw def ko suma seasoning yi ma am fii mooy yi ma leen wanoon noonu dinaa leen wan yan season yan seasoning laa fi def yëpp fa def paprika smoke paprika bi mix herb ah, bii nii am all purpose seasoning la mooy veggie purpose seasoning boobu ma def fi ni tamit am parsley fresh parsley bi ma def fi tamit a little bit of spring onion garlic coarse um, black pepper so moom laa am fii nii to mix together moom soo ko mixee rek nga bàyyi ko rek moom dina blendal boppam together Yep. ñor na dama ko ñëw fay after ma ko ko wan gis ne daj na yi ma ma fa def ko daj na so just a little bit of soy sauce parce que def naa fa Himalayan salt bi so soy salt bu bari tuuti rek and then ma add tomato sauce bi just two teaspoons dafa des rek nekk am potato bi moom tere so li fa def mooy li ma fa defagum mooy garlic rek laa fa defagum so dama koo mash bam ko mass bam toj potite bi after den dina fa defa yenen ingredients way bala buub dama ko maas njëkk bam toj lii moom daanaka mom pere na mom yep it's all well well cooked ma mom, ko moom fu nek dama ko ñëw fay ci ni mako ko jox na ma lolu nak am am um, um, mash potato buma buma buma ma mash mu ngi ni lum am ni moy parsley spring onion bu green lifin ma leen wanoon ba pare ma def fa tuuti cause am um, black pepper ma def fa tamit cheese cheese bee nekk nii ma def fa tamit like am um, powdered milk dama leen ko fàtte wan bii So len ame any powdered milk ngeen def ko foofu noonu fu nekk nag mix ko together ko mix ba yep, mix together kon gaa yi fu mu nekk mix naa am mixture bi moo nekk nii li ma si boolee yëpp mix naa ko ba pare so fu mu nekk li ma def si mooy xaaral nga su fekkee ne xëj na danga koo defar te sa lifin bi xëj na tigut mun nga see yokk tuuti forin soo buggee su ko defee pour affaire bi mun a tikk dafa dess rek pour nga pour da notique sax waye pour mu meuna a nga xamne ding ko meuna ma def fa cheese bi lu em rek nga xamne ding ko meuna a parce que soko defé bam bari tamit xam nga su boba dafa dafa Alo. Bayan so ngay gis ne léegi-léeg mu lifin nga fata fata saay bi nga xam ne mu ngay feeñ nga def ko shape like oval soo buggee noo bëggee rek shape boo ko bëggee defar rek nga teg soo nii la soo léegi dank naa ko ba dank naa ko ba pare dafa des rek si yéen rek ban façon ngi dank ngeen bugga ndax dafa bugg a mag waaw ndax da bugga pour mu ndaw waaye xam nga ñun faati lañ sant ñun ñun na mag rek <laughs> waaw fu mu nekk nag soo paree su ma ko danka naa ko pare fu mu nekk li maa def mooy dama koo def si foriñ bi fexe yépp am def ko si breadcrumbs bi waaye xaw ma sorry si egg bi ngeen def ndànka ndànka rek yëpp am nga def ko nii nga indi ko breadcrumbs bi tamit maa ngi ko season tuuti li ma fa def mooy am def naa fa tuuti paprika powder ba pare def naa fa tamit cumin seasoning ma def fa black pepper coarse black pepper bi ma def fa tamit um, all veggie, tofu seasoning pour rek ma am chakka waaw nga fexe ba ngeen defaroon gis ngeen nakalam naay see soo rek la def lii ngaa def yépp yi des waaw duma mun a def naka téye di def yépp parce que benn loxo laa amee moo tax waaye dinaa ñëwaat incha allah. fu mu nekk nag daanaka defar naa yépp a pare fu mu nekk maa ngi nii am suma diwlin soo soo koo def xëy na dangaa def diwlin bi mu mu éeg tuuti nga xam ne parce que lii moom ñor na ba pare daanaka looy def rek mooy rek mu pour mu brown waaye ñor moom ñor na ba pare daanaka waaw. bismillah ñor na moom na brown rek nga soxla fu nekka browné e nga mu amee golden brown boobu ga rek nga génne ko waaye moom ñor yëpp ñor na si biir ba pere na suma gaañi kon affaire bi daanaka pere na tey lii laa leen amaloon suma waañ very nice di nga gis mincemeat bi yaa ko gis ne cheese bi tam melt na mais na ko mosaguma ko de waaye xam naa ne nag moom macha allah bii waaw Mariama Faty Haidara yakal na la bi yow mi nga xam ni time bubu nun ma dan encourage every time luma la seen mari yow yaa am talent doo ko yóbbu biti mais na dedit rek so parce que wax dëgg ne yalla lo am am am na ñeneen ñu lu wax so way ya ma push di ma push di ma push ba machallah allah Faty Haidara maa yakal bi ma indil la ko <laughs> kon bon appétit everyone te lii laa leen amaloon soo leen amee any comment wala any loo leen bugga tam ma tooga wala tamit anything loo xam ne defuma ko right mun ngeen ko binda su ko defee tamit ma jàngee si loolu waaw tey nag lii laa leen amaloon suma waañ xóob ne laaj ngeen ko bon appétit